Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbooloo mi ñu ne ñëpp tuur sëñ Mor waaw am na ko doon grab ci wàllu garab googu ñuy wax màdd garabu màdd garab la gu bari njëriñ te yu ci bari ci moom dañ koy surtout doom yi ñuy doom caf ko gi neex la ñu di ko def waaye terewul lu bëri njëriñ la ndax am na yu bëri sax yu ci ne surtout vitamine C boobu vitamine lu bëri njëriñ la rawatina euh, ma tax lu mel ni ñi nga xam ne dañu stress te jafe su koy jëfandikoo moom surtout nga def ko moo xam nga def ko si ko wala nga def ko di baax na ci trop ba ci ñuy crampe seen yaram day crampe moo xam sàddi di wala su koy jëfandikoo moom itam mu ma jooju wala ma def ko si di ko naan baax na ci trop ci xeeti jafe yi ak crampe ak yi koy waral yëpp saxla la rampe yi muy woy xeet yi nga xam ne da koy sababtu bëri na dafay dana am ci sax ci wàllu deret jafe ci wàllu deret mooy dawe yi ci sàddit yi mu jafe-jafe wàllu sàddit yi yëpp loolu mën na tax muy crampe te boo koy naan loolu mën na koy mën na moom ji ba ci sëqët fekkee ne kay sëqëtit baax na ci lool surtout ko di nga xam ne day mel ne coroxaan mel te put gi xesen noonu su koy macc wala ma def ko jus di ko naan baax na ci loolu ba ci jigéeni wérul yi sax yoo xam surtout nag ñoom ñoo koy gën a bëgg di ko lekk noonu di ko macc xëy na dañ leen seen xelal leen ci jiiñ rek waaye lu baax la ci surtout ñi nga xam ne suñ tàmbalee gis ëmb noonu dañuy wàccu rek wàccu rek mën a wàcc ñooñu ñooñu bu ñuy macc màdd baax na ci ñoom loolu ñoo xam ne suñ toll seen ñetti weer yu njëkk yooyu dañuy loolu lay na sonal trop ñu tam suñ ko defee ji di ko naan tuuti par tuuti par góox noonu baax na ci lool ba ci wàcc yu ma bari moom da leen ci dimbali ba ci ñi biir bi mettit ñi nga xam ne dañoo am biir bay méttiit koy màcc wala ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe lekk mu rees baax na ci trop suñ koy màcc loolu seere yeeg yëpp it ba ci ngalawu biir yi yépp da koy dindi da koy jëfandikoo baax na ci loolu kon gis nga fii nga xam ne daanaka xale yee ya koy jëfandikoo wala yenn jigéen ñi fi ñu tolloo fenn foofu di ko def saf safar rek waaye nag du saf-safal ndax ay ferñeent yu bari njëriñ ñoo ci nekk yoo xam ne mën naa dimbali bu baax a baax ci wàllu surta lekk ba ci ñi nga xam ne sax dañoo mën appétit ñoo xam ne tey seen lekk bëriwul suñ jëfandikoo moom itam baax na lool ba ci ñi nga xam ne dañu yor cholestérol sax graisse gu bari gii baax na trop suñ ko defee jus di ko naan da googu te graisse mën na jur xeeti tension yi mën na jur yi ak yeneen tawati xol yi yi gën a bëri gis nga ba ci crampe boobu ma waxoon moo tax su ko defee jus di ko naan baax na ci trop ci wàll yooyu da koy doom yi ni mu amee njëriñ noonu it ba tey garab gi ci boppam noon la bëree njëriñ xob yi ci boppam bëri na ay njëriñ yu bëree bëri ci xob yi soo tàngalee ndox def ko ci te ko naan baax na lool ci wàllu gis-gis surtout jafe-jafe wàllu bët yi baax ci trop baax na lool ba tey ci wàllu yaram wi metti xam ne seen yaram yi day métti surtout seen yaram yi metti noonu. doon suñ tàngalee ndox am ci ngëbu loxo def ko di ko naan kaas par kaas surtout bu ñu bay tëdd ñu naan ko suñ yeewoo ñu def ko loolu suñ borom mën na leen ci defal taw fi bu baax ba ci ñi nga xam ne dañoo biir buy daw tam xob yooyu soo tàngalee ndox def ko naan soo doon xob yu tooy sax moo gën a gaaw jàmb ko noonu ci kaas biir buy daw loolu moom lu ci baaxal lu ba ci ñi nga xam ne sax da dañu jafe-jafe moom itam ci ñàkk appétit ba mu ñu waxoon ca doom yi moo itam xob yooyu ci boppam mën na koy saafara koy faj xob yooyu lekk lu bëri buggul lekk ma xob yu tàngal ndox def ko ci dañuy naan par kaas saa yu lekkee naan kaas parce que loolu dana yombal li may lekk rees gaaw a rees lool ba mu tax mu soxlawaat ko loolu baax na ba ci biir yu métti xeeti métti da koy saafara naan su fekkee dafa am jafe xeeti biir surtout góom te biir yooyu ulcère yi estomac yooyu xam ne mooy def biir di métti su amee xob yooyu def ko tàngal ndox def ko ci moom itam di naan xam borom mën na ko ci defal tawfiix ba loolu yëpp day saafaro bu dee xas mi it bëri na njëriñ lool nag koo xam ne dafa yëg ne lekk lu baaxut soo amee xasam tàngal ndox def ko ci wala ma xooj ko di ko naan da koy saafara ci saa su waa nag lu toll kaas wit rek la ci naan ba ci biiru taññi it su ko moom itam eh, tàngal ndox léegi def ko ci di ko naan suñu borom mën na koy defal tawfiix moom xas moomu noonu ba tey xob yi it li mu waxoon noonu la doom yi doon faj sëqat soosu wala jafe-jafe wàllu biir yooyu ba tey wala waxoon wàllu gis-gis boobu yëpp ba amee xob yu noonu ba tey baaxal ko moom itam wala mu tàngal ndox def ko ci bàyyi ko mu par kaas saa yu lekke baax na ci trop sax bu dee góom yi métti bu dee góom tawati góom wala picc surtout jàngoroy kajoor yi moom itam noonu xob yi noonu soo amee sungu fa xob yooyu def ko sungu di ko lekkaale wala def ko sunguf léegi suy ko ci góom yi lu baax la lool ci xeetu ba ci góom yi ci biir yi lu mel ni ulcère ak estomac yooyu yëpp amee xob yi noonu di ko baxal góom yooyu di mét biir yooyu di métti te métti woowu di koy waral di wàllu ulcère yooyu wala estomac yooyu wala colopathie colon boobu dafay góom ak yu mel noonu yooyu su amee xob yi moom itam di ko naan tàngal ndox di ko naan wala mu def ko sunguf sax di ko boole lu muy lekk ko lekk. baax na ci trop da koy saafara bu dee ren yit noonu ren yi it moom it lu bari njëriñ la surtout wàllu tawati eh, dencante yi lu mel ni suppiis météo su amee xas ren yi xooj ko léegi di ko naan yàlla mën na ko defal toxlu ba ci si da koy saafara ba tey ni xob yi ma ne woon ci wàllu biir ba tey reen yit noonu la mel su amee reen yi moom itam xooj ko moom itam léegi di ko naan suñu borom mën na koy defal tawfix ba miir moom ba ci ñi nga xam ne sax dañoo jafe ji am jafe ci wàllu tuur ndox tuur ndox moomu di lakk wala muy métti ba ci ñi nga xam ne dañu néew doole sax ci wàllu sëy xeeti tawat yooyu nga xam ne day waral wàllu néew doole ci wàllu sëy ñoom itam suñu amee ren yi xooj ko léegi di ko naan ab takk rek baax na ci lool ba ci sax ñi màng ñi néew dara néew doole di miir dañ ne dañuy miir toujours itam suñu amee ren yooyu xooj ko di ko naan baax na ci lool loolu yëpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne sax xëy na dañ koy tënk rek waaye lu bari njëriñ la loo xam ne moom itam dañ ciy faju donte doomam yooyu dañ koy lekk muy lo neex ñu di ko jëfandikoo it waaye bari njëriñ lool ak yoo xam ne da koy faj yoo xam ne ak yeneen yoo xam ne sax yegguñ ci